ne nag moo waraloon woote bi mooy dañu doon def tey orientation budgétaire bu année deux mille vingt et ndax yàlla dafa ñoo dafa dogal commune bi muy mairie mairie bi ci loi yi nga xam ne moom la réew mi tënk ak sarti réew mi dafa wax ne day bu année bi di jee di ñëw da ngay def orientation budgétaire da boo paree nga monter budget bi techniciens yi ak monter ko dëppale ko ak li nga xam ne moom la askan wi soxla ci gox bi nga def nga def budget bi jëmale ko ci loolu jox conseil municipal bi teew sous-préfet de arrondissement Ndam teew euh, payeur départemental bi nga xam ne moo moo nekk trésor teew conseil municipal bi wate budget boobu ñu door ko mm, commune bi door koo mën a jël di ko exécuter ci ni ñu tëggee budget bi loolu lañ doon préparé moo tax ñu defoon orientation budgétaire orientation bi nag charte yi dafa wax ne da ngay woo askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci commune bi déglu leen loolu obligato obligation la ci texte bi nga xam ne moo moo ñu teg ñu war a woote woote woote budget bi loolu moo tax ñu woote woon tey population Touba yi ak association yi ak chef de village yi ak groupement de femmes yi ak la association des enfants des jeunes yi ak secteur yëpp ñu woo leen toog wax leen programme bi déglu leen kenn par kenn ñu wax li nga xam ne mooy seen xalaat waaye wax li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg loolu nag lañuy dajale jox ko techniciens yi boole ko ak li nga xam ne ay xalaat la ak i obligation yoo xam ne commune bi da ko war a def ci annuel maanaam boo mu mel ni salaire yi nga xam ñi nga xam ne dañuy liggéey ci commune bi seeni salaire ak charge fixe yi nga xam ne obligatoire la dañ koy def lu mel ni facture courant facture yi Senelec facture yi leneen ak éclairage public yi seen facture yi mu ak li ñuy wax charge fixe charge mooy faire dépense lu mel ni dépense nga xam ne aw obligatoire la yoo xam ne dañ ko war a def loolu la ñuy jël mu nekk jiital ko teg ci li nga xam ne mooy li askan wi so soxla li nga xam ne ndigal la ci ñun ñu teg ko ci boole lépp tëgg ko def ko budget commune bi loolu mooy budget bi nga xam ne moom la ñuy fonctionner li tax nag mu am ay sart yoo xam ne ñun faw ñu def ko muy de lu mel ni njëkkee benn réunion publique bi nga xam ne moom lañ defoon ci Touba Njaareem ak orientation bi ak wate budget bi ak leneen yeneen yi nga xam ne ay rencontre la ak i formation yoo xam ne dañ ko war a def dañoo yàlla dafa dogal ñu am ñu dugg ci pakaseen bi am ci cër bu am solo ci gannaaw bu ñu càmbaree ba jàpp ne war nañ mën a am ci pakaseen bi ndax doxeen wi ñuy dox leer na luñ leen jox danañ ko def fu leer waaye population bi fi nekk war nañ laaj leen ñu dimbale leen ko ñu dimbale commune bi commune bi mën a satisfaire seeni besoin loolu moo tax ñu ñu ñu obligation yooyu ñu di ko defee ni nga xam ne moom lañ ñu ko sante ndax bi ñuy dimbale kat dañuy dimbale waaye dañoo teg seeni sart yoo xam ne képp koo xam ne bëgg nga ci ndimbal li ci ngay dox teg sart yoo xam ne boo ci amee noonu ngay doxee yàlla nag dimbale nañu yi yiñ tegoon ne ku ci bëgg ci ngay dox dox nañ ci ba bokk ci biir waaye mu des nag ndimbal li buy ñëw sart yi nga xam ne moom lañ ñu tegal pour ñu dox ci loolu ngir ndimbal li mën a gën a dolliku ren daal ñett mooy suñu prioritaire yoo xam ne bëgg dañoo bëgg balaa ñu bu fekkee suñu yàlla mi maye aw fan may nañu ko bala ñoo toogaat fii di def orientation budgétaire deux mille vingt deux ñoo ci ndox mi éducation bi ak tali yi bëgg nañ torsion bi nga xam ne saam bi nga xam ne dañoo génn ci dëkk bi balaa naga ni déwén ñu am yoon bu ñu jaar ci euh, ndox mi ci forage yi ci adduction de déjà lancé nañ appel d'offres yi donc danañu bëgg barab yu bare bari yu amul ndox dana am ndox éducation bi aussi bëgg nañ ci lu bare bare bare problème forage yi noonu dañoo jot ndigal ci sëriñ bi ne nañ ko ànd ak acteurs yi ci nekk ñu fexe ba li ñu amoon li ñu dal ren ci màggal gi incha allah màggalu déwén ñu am satisfaction ci ndox mi. loolu bokk mooy suñu prioritaire yi nga xam ne moom la ñu opté jiital ko gannaaw nag euh, les charges obligatoires yi nga xam ne mënul wàcc commune bi. fii ma taxaw di wax yaw maa ngi wateeguma bitse laase naa juróomi poste de santé yoo xam ne dama bëgg balaa màggal ak Touba déwén allah ñu réceptionné ko. pour monitorer sa lancé benn centre de santé référence centre de santé référence bariwul ci Sénégal boo xam ne dañ ko bëgg a def maanaam ngir day am lépp ci ngir maanaam euh, euh, amédiore euh, sa secteur de santé bi réfectionner ay poste de santé fu mel ni Ndindi fu mel ni Tindodi fu mel ni Kër Ñang yooyu ñu réfectionné ko donc loolu mooy la ñu bëgg def ci santé bi ren